mais moom mu nangu nekk un chroniqueur surtout fële nga xamante ne moom mooy Walf TV mm. jamono mm. ji mu nekk dans les liens de la de la détention ndeysaan sëñ Baara dafa la dafa la inspiré voilà non <laughs> pas inspiré xam nga sëñ Baara mm-hmm. li ñu njëkk a def mooy dañuy profité di ko ñaanal yàlla fee mu nekk suñu borom fëgg ko boppam mu jóge fa ak jàmm ndax du place am nag du place gor nag du place kenn mm-hmm. man li may wax rek des ko siiw siiw na mais gis nga émission muy def mm. di Walf TV wallahi man mi lañ ko ko proposé lu tax nangu woo waaw parce que du sama domaine mooy li ma la wax rek boobu du woon lu du woon loo xam ni xalaat naa ciy dugg parce que saa njoogu ñëw na ba sama kër ànd ak Cheikh Talif mii yàlla xam na ko ñëw ni ma lii lañ la bëgg a sant lii lañ bëgg nga def ko maa ni ko déedéet finalement ci lañ jël